ñu la doon laaj loo xam ci tuuma yi nga xam ni kii di Adji Sarr nee na Ousmane ko daf ko doon sàkku ba pare teg ci di ko menacer de mort. doon la loo xam ne nii tamit rafetlu wuñ ko quoi mais bu fekkee loo xam ne nii dañ ko ko tuumaal ah balaa muy jënd àdduna dina ko gis parce que tuumaal gor yàq deru nit yooyu dañ ko commencé gis ci population bi ci Sénégal te loolu war na mën a ñàkk parce que ñun soxla soxlawuñu yooyu moment bi ñi ngi tal feebar bi Covid bi affaire yooyu noonu xam nga bi loolu mais tey boo xëyee ñuy defal ay kii violé na ni kii kii def na lii ki daal ñu soxla moment bi yooyu. na yoon def liggéeyam maanaam bu dee Ousmane Sonko moo jëf-jëf ji yoon def ci li nga xam ne moom la ci war a def bu dee tamit soxna si tuuma yi nga xam ne da koo def Ousmane Sonko teg ko fen lu du ci ay tappale jël soxna si def ci liñ ci war a def ba bu ëllëgee kenn du am fitu def lu mel noonu ndax yoon dafa am solo ci am réew réew mi nag bu ñu demee ba di sàggane yoon loolu mën na indi jafe yu bari te bàyyi. xëcc xiiroo ak ŋaayoo yu jëm ci wàllu politique bu kenn en nit ngir lu jëm ci sa wàllu àdduna wala politique lu ci am rek nañ ko teg ci yoon en tant que tamit ñi nga xam ne ñoo ànd Ousmane Sonko sama xalaat ji mbir nañu ànd ak dal ci euh, ci mbir mi waaye tamit liñ liñ den def di bañ taxaw di xeex ne Ousmane Sonko du dem loolu xëy na ni koy yoon ni koy yoon jël see yaakaar naa loolu du yoon sax ndax moom euh, droit bi mu am en tant que député ñoom kon ñi den xeex ak di xëccoo di taali station gi ñu mel pour maanaam euh, acte bi nga xam ne ñu ngi ko doon jël ci Ousmane Sonko loolu moo taxoon. pour l'instant moom Sonko moom ku dégg ay waxam xam ne ba ñu dem ci yoon waaye dafa bëgg rek ñu jox ko ay droit ba def ñu teg ci yoon. a nit ki mënoo jiñ fi yow auparavant que say famille sa propre famille di génn di démontrer affaire yooyu ndax fii ko dégg nañ benn benn magam génn ne Aïssa dañ ko gouvernement dafa xaalis affaire yooyu du moins moo Ousmane Sonko tamit génn na wax version affaire yooyu noonu te lu mu wax tamit ñun duñ ne euh, pouvoir ren far duñ ne moom ren far affaire yooyu mais wax ji yanu maanaam soo déggee dafa xaw a dafa xaw a jaar yoon te fii que man luñ fi déggagum nii Ousmane Sonko ñun lu mu fi wax nii man sama dama part personnel moom laa gën a gëm. tuumaal la tuumaal moom tuuma moom ku nekk mën nga ko yëkkati teg ko ci deru nit mais léegi li ci des nañ déglu rek xool justice mu def liggéeyam. xool lan moo ci nekk ak lu ci nekkul mu wax ñu ko. Sonko bu fekkee ni moom loolu am na nekk na koo xamante ni yàpp na population bi parce que mënoo nekk nit koo xamante ni yaa ngi xëccoo li ñuy wax euh, réew mu toll ni Sénégal nit ñi am yaakaar ci yow ñu lay tudd ci lu mel noonu bu fekkee ne am na ah sincèrement parler man bokk naa ci ñi nga xamante ni décevoir na leen parce que Sénégal du lu ndaw képp ku ko xëccoo war nga nekk bon exemple. wane loo xamante nii tax na ñi ñi am yaakaar ci yow ba mën a jël seen carte di la ko hôtel war nga yenn yoo xamante nii rek luy indi yu mel noonu yu fu àdduna wala foo wala yooyu war nga ko éviter surtout genre yoo nga xam dañuy salteel waru leen mën a fréquenter ba loolu da ci am. ñu gis ni tey militant wu ak ñu àndoon ak Sonko ñu bari ñi gis ni soit ñi ngi leen di jàpp soit ñi ngi nekk police bi ngi nekk leen brutaliser ñu bëggoon a xam lan moo ci sa xalaat par rapport à voilà loolu effet jeunesse la am nga jeunesse dafa am coup coup de foudre réaction jeunesse et et c'est le sang de la jeunesse qui se sent maintenant de l'autre côté tamit dañu war a am compréhensif mais nag j'ai vu que y moins de manifestations parce que ñi ñu jote téye ñi ngi leen di méttatil ba nga xam ni ñeneen ñi dootuñu amati courage pour affronter yenn yenn obstacles yi quoi dëkk bi yëpp nga si mënta am affaire yooyu noonu gars dama woowee jël seen temps affaire yooyu noonu soo ànd ànd Ousmane Sonko taxu ma taxu ma xeex affaire yooyu waa pas fii Sénégal soo gisee tey su ñu man mi gaaw sama mboto yaay gaaw affaire yooyu noonu gars su ñu dee yàq dañuy ñëw yàqandoo yëpp te ku yàq yaa nga yàqalaa sa moom jeune pour man tamit gars ben benn benn côté war nañ di doon conscient affaire yooyu noonu di bàyyi di liggéey non Ousmane Sonko dès que mu Francis sur la rek xam na ni yii war na ko a fek ay kosoor parce que fii ñu fi ay Abdoulaye Wade ñoo fi jiite te ñoom ñëpp dugg nañ kaso ban génnee nekkaat nañ doon nañ président du kaso taxaw nga doon doon bañ doon président mais avec la manière gars yi nañuy bàyyi xel topp réew bi tamit bu mu leen tax enforcé tey yii nii am nañu kon ay maître baabu ba ki ñu ne ànd ñu fi Abdoulaye Wade ñu Abdou Diouf tëjoon ba Abdoulaye Wade euh, nekkee président ren di doo ak génnee te fiaama yi yow nga doon benn soutien de famille di xeex yenn affaire yii nii ban tëjoo si ay militant am tamit xam nga dëgg la tooñ nañ leen mais tooñ bi da ngay xaar ba nga xamante ni verdict na nga war a mën a jóg war a mën a yàq wala nga war a mën a wane sa mécontentement mais euh, waruloo ñu wax lii rek nga jóg commencé wane sa mécontentement di yàq ak di def dëkk bi ñoo ko bokk waruñu ko yàq pour Ousmane Sonko waruñu ko yàq pour Macky Sall waruñu ko yàq pour qui que ce soit comme politicien. lii war mooy nañuy déglu. te euh, di suñu njiit yi ñuy jiital ñu leen di déglu bu baax di leen bàyyi xel. man dama dul nangu di xeexal nit ku mën a doon que ce soit kii di la xeexal duma ko def ñooñu pour man dañu naïf parce que ñoom buñ ci deewee perte boo si blessé perte parce que ki ngay xeexal loolu ba tax nga ci sacrifier sa bakkan te koo ko fenn ñu la ci torturer di la prisonnier. ah bu fekkee ne nit danga bëgg alal wala lu mën a doon caat da ngay liggéey mais bul ko def parce que naa xeexal nit parce que mën na ma dimbali ëllëg loolu suñ borom bëggu ko te bu fekkee ñun ay jullit lañu euh, réewu Sénégal ñëpp xam na ni euh, musulman moo ëpp doole même bu fekkee doo musulman sax que ce soit ngay chrétien ak loo mën a doon nit dangay ngay gëm sa bopp sa laaf yaa koy liggéey sacrifié wu liggéey. pour mën a jëriñu ëllëg sa bopp ak say famille. plainte bi nga xam ni aji Sarr defoon na ko tuumaal ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko transformé nañ ko par le procureur euh, par une plainte contre X lan nga xalaat ci loolu aussi. waaw plainte contre X. day gën a lëndëmal affaire yi day gën a dugal Sonko en quelque parce que dinañ jógee léegi ci viol bi dugg ci leneen moo tax procureur bi. avec euh, ak intelligence am mu def plainte contre X là dañuy gën a dugal Sonko parce que après dañuy jugee beneen beneen beneen beneen système dugg si beneen système dañuy bàyyi maanaam viol bi dugg si leneen te loolu foofu la pénal bi nekkee nag quoi. pour man Adji Sarr ba tey day tatoné xamagoo mu bëgg nan nit pour man plainte contre X soo ko defee nii rek. mooy maam X da nga xamagoo kan nga déposé plainte dafay yooyu noonu dix pour man loolu laa comprendre. léegi nga ne woon kii nga accusé nga dem ba si yàlla dindi ko retiré ko def ko ne mooy ba tey xamagoo positionnement fu mu taxaw fa fii dañoo am tendance peut être tamit yaa soo waxee viol viol daa xaw a rëy suñu dëkk bi gars nii mooy mais bii moom xaw ma am naam amu de man moom sama mooy gis naa ne loolu day wane ni rek gis nga ni kon di tëb di dal baaxul affaire bi def nànk la parce que euh, xam nga mooy li ma la wax tuuma ku mu neex mën nga ko yëkkati teg ko ci deru nit mais bu demee ba leer rek lépp dina leer. Adji Sarr nag bon wax na waxam Sonko tamit wax na waxam fi mu ne nii leen déglu rek daal. plainte contre X bi nekkul euh, en faveur ci Ousmane Sonko. non loin de là loin de là contre X léegi ñoom dañuy def seen mëbët déjà euh, sunu woon ni dañu ni contre Ousmane Sonko laa dañuy wax viol bi la mais léegi contre X plainte contre X viol bi si la bokk leneen li si la bokk. trouble à l'ordre public si la bokk léegi nag viol bi su fekkee nag mënuñu ko si jàpp laa trouble à l'ordre public dañ ko si jàpp. kaaw ndax viol bi am na wala amul foofu dafa sori <laughs> yooyu yëpp dañ ko warul egg euh, Kanta dem na fa rek waratuñu xool lu mu def ak lu mu deful rek moom dañ ko war a jël teg ne la supprimer ko complètement parce que kooku du référence référence warul def loolu jarul ñuy egg ci ay test. parce que mënoo soxla Sénégal lu toll ni président nit ñi yàgg fii nekk fi ndax président bi ñu yor ak bi yor Sénégal jamono ji muy Macky ñi muy gouverner neexuñu population bi sonn nañ ñi ñi gis Sonko am ci moom yaakaar ne ah kii kat peut mën nañu mën nañu fajal suñu maire ñu lay dégg ci yooyu noonu man dafa ñu décevoir ko bu fekkee am na kon man waxuma sa ay test man moom bu fekkee loolu am na quoi man banaar yàgg na.